di jàpp ne euh, ñoom ñi nga xam ne ay enseignants lañ mënoon nañoo am beneen comportement bu bi ñu amoon jour bi ñuy départ parce que ba keroog muy sotti kenn moo ci amoon Covid bi mais moom moo contaminé ñu ci des te dajaloo boobu moo ko indi donc man li ma jàpp rek mooy sénégalais yi ak parent d'élèves yi pare woon nañu pour dem ci ouverture bi respecter mesures yi nga xamante ni mesures sanitaires lañ euh, comme département de Thiès bi ñu dëkk. il faut ñu gërëm saluer liggéey bi ministre de l' économie numérique Ndeye Tika Ndiaye Diop liggéey bi mu ci def. Euh, ci département de Thiès mooy euh, xool xale yi war a dem école mu pare ay jumtuwaay yoo xam ne bu ñu dikkee dinañ respecté mesure pare dinañ am ay matuwaay yoo xam ni duñ ko jàmbat kenn muy casque muy muy maski raxasu bi etu pare woon ay yëpp yóbbu ko ci école yi pour ñu ubbi ci jàmm mën a jàng jàmm dellu siwaat si jàmm donc loolu dañ ko ci sant di ko gërëm parce que mënoon na def mais dafa ne. askan bi wara a dañu wara nek ci ay conditions yu bax mune na ci dugal sama loxo ba suñu diké kenn baña wax ci ben école fi wax ni am ay manquement yu am loolu lañ ko ci sante diko ci gëreum donc c'est à saluer mais nak il faut ñu xam ni feebar bi fu mu toll nii bëgguma ñuy taxaw rek wax ni président mo def li wala président mo def lee démarche communautaire il faut nit ñi ku nekk ku nekk xam ni bi sa mor jàppal ni yow yaa ko am loolu je pense que su amee dinañ mën a dem mu ngi mel ne tey misaal muy taw ñu ne nit ñi nañu liggéey mais ku ne da am parapluie parapluie bi mooy tax ndox mi du la laal jumtuwaay yooyu lañu am pour ñu waroon dem mën a ubbi école yi mais malheureusement gis nga am na ay at sabotage yu am ku ne di communiquer nu mu la neexee donc loolu amul benn njëriñ Macky Sall jàng bi la bëgg sauver année bi je pense que ne loolu ñëpp ci lañ nekk ministre Ndeye Tické ci la nekk parce que li mu ci doon liggéey ñëpp gisoon nañu ba Ceesuwaay yu bëri jugoon saluer ko donc dama jàpp ne nañu war a delloo suñu xel te xam ne feebar bi ñun ñoo ko war a xeex mais pas Macky Sall mooy toog fi mu toog dañu ko xeexal dañuy joxe ay orientation rek sénégalais bu ne jàpp ni feebar bi yaa ko am nga mën a maytu sa morom à distance raxas say loxo maytu surtout maytu ñu mën a gañ a combat bi parce que mën nañ ko gañ ba léegi mais suñ ko bëggee nekk di saboter rek affaire u njàng du affaire affaire affaire bu ndaw donc lu sérieux war a jël affaire bi def ko ko au pour mën ko combattre mën ci génn man loolu laa jàpp ne suñ ko defee dinañ mën a am ndam si li ñu jëm. transporteurs yi nañu leen mun nañ leen jàppale nañ leen jàppale état bi na leen jàppale mais bàyyi ñu dem dëkk ak dëkk moom mënagul nekk puisque feebar bi lay gën a tas rek nit ñi tam aussi du ñu xool seen situation wu bopp ba loraale ay nit. mënuñu nangu heure bi ñu ubbi na leen dem leen dëkk bu leen neex c'est-à-dire que bi mi ngi xool je pense que ñu ngi ciy waxtaan fii ak demee dina am changement ñu xool dëkk yoo xam ne mënuñu fa dugg ñu fermer yeneen dëkk yi nga xam mën nañu ko bàyyi ñu bàyyi ko loolu état moo koy xam donc dañuy suivre ñoom directeur yi ñu teg ñu teg ci te ñu dal bàyyi grève parce que bi ñu commencé di taal léegi je pense que ministre Ndeye Tické yi envoyé na délégation pour ñu dal Euh, te coow li amul njariñ xeex bi amul njariñ réew mi xeex ak yi di ko defar donc loolu la ñuy doyee kilifa ñu ngi koy sant aussi di ko gërëm parce que situation mi ngi changé. non am na lenteur mais mi ngi dox mi ngi dox normal chaque jour nga seetaan gis ñu recevoir seen seen seen non Thiès commencé def nañu lancement bi pour donc dina wàcc si ñëw fii ak fin mois Thiès dina mat noonu lay demee parce que non am na ñu gisagul ngay wax te ñooñu ñi nga xam ne war nañu am xam nga un million de ménages la. donc mënuñu passé un million un million ménage du ñëpp ñu mu concerné dinañ ci jot seen wàll parce que nag képp la bu jeexee dañuy jëndiwaat incha allah li ma gis ministre bi di ko doxalee daal jàpp naa ne lépp dina mat